Bonsoir amis fidèles téléspectateurs ravi de vous retrouver encore une fois dans votre émission Voxu Art tey nag dañoo def doxantu rek ñëw ba fii nga xamante ni mooy ñaari tali daal di seet si koo xamante ni macha allah ndaanaan la ndaanaan su ma ne ndaanaan la tudd papaam muy Moustapha mbaay war ngeen xam fan laa jëm kooku mooy Tarba Mbaye macha allah Tarba Mbaye mi ci baat bu neex bi moom laa seet si fii ci ñaari tali euh, bu ko defee dama kay daal di nuyu rek ñu daal di wéyal li nga xamante ni mooy waxtaan bi. Tarba nuyu naa la noo def mbaa yaa ngi am jàmm. yee Fafa lay nuyu bu baax a baax di nuyu équipe Equivox TV yëpp yi ñëw tey seet si ñu di kontaan bu baax a baax a baax ci yéen di nuyu internet di tamit yi toog di ñu seetaan di kontaan nag si dalal leen di waxtaan ak yéen. voilà avant tout dama lay wax ne qu'est-ce que nga nekk euh, doomu Moustapha Mbaye. di ñu xamee ko ci tàgg yonent bi salallaahu alayhi wa sallam yow tey ñu gis ne dugg nga ci musique nga jëlee beneen yoon bi di def mbalax loolu nooñ ko mën a expliquer. waaw comme ni ngeen ko gisee rek eh, am na ñoo xamante ni ñu ngi ci musique bi ci mbalax bi te mosuñoo sax am papa buy way man nag samay juróom-ñaari maam yëpp kon ni ko nit ñi di waxee ay géwal lañu ma juddu ci askanu ngéwal sama famille ñëpp nekk ay ndaanaan. Euh, sunu borom orienté ma ci beneen boor bi waaw ñu ciy sant yàlla ñu am ci tamit sunu euh, ndigalu waajur mu jàppale ñu si ñaanal ñu si loolu rek moo ko waral. Euh, kon sa papa ñaanal na la ci li nga xamante ni mooy mbalax bi ngay def donc ça veut dire que amul moom amul gisu ci benn inconvénient le fait que nga jaar ci côté mbalax. waa xam nga nit ku nekk li nga doon dafa judd sa juddu te képp ku sañoon da ngay bokk ci. xeetu Seydina Muhammad mais yàlla mooy dogal ci jaamam lu ko neex moom xam na ne lii la suñu borom dogal ci man mu nangu ndogal boobu noonu ànd ceeg man di ma si jàppale ñaanal ma si. temps yaa ngi def musique. waaw euh, musique nag yàgg naa ci yàgguma ci parce que ñun ay xale lañ yàggaguñ ci dara mais euh, ba ñu ne dañoo dañoo nekk xale euh, bëgg way sunu borom jagleel ñu ko. ñu koy def defantu ci mbedd yeeg yooyu sunu frère jël ñu indi ñu ci orchestre am ñu koy awu. kan mooy sa frère. Chamsou Mbaye de passage bu baax a baax a baax ma ko doon awu di ko defal ay première partie moom moo ma njëkk dugal ci musique yàgg na tamit trop. Mm. lan moo waral nga ber sa yoonu bopp moom moo la ber wala yow yaa xool gis ne man mature na pour euh, def sama yëfi bopp nga def ko. waa xam nga olof Njaay dafa ni jàng jàngaan boo moo xalee tamit berse daara xam nga moom moo ma tete yar ma tuddee ma doom xam nga nit moom ku la tuddee doom desatu la dara ñu bokk benn bàyyi muy sama taawu papa mu dem ba xam ni kii kat li muy def am na ci benn maîtrise même bu fekkee moqalu moo ko sax mu ñaanal ma ñu jël suñu yoonu bopp xam nga suñu borom du ñu defal sutura ba lépp lu ñu song rek yàlla di ñu ci defal sutura ak ñi ñu bëgg di ñu jàppale ba lépp lu ñu song rek daan ko si kàttanu yàlla. Mm-hmm. lu mu gàtt gàtt période bi man euh, xaw a toog ni ci kër bi gis naa benn complicité boo xamante ni am na sa diggante ak sa papa macha allah ñu koy nuyu de mu nekk ko oyof ko laa biir mm-hmm. euh, complicité boobu lan moo ko indi. waaw xam nga man moom sam mooy sama xarit sam sama xarit la sama complice la. xam nga boo compro boo boo ñëwee ana yow ana man de xamoo ma dangay ngay ni sama maam la. ndax eh, cofeel bi bi ma am ci moom moom tamit ma am ko ci man. ni mu mel ak man noonu la mel ak doomam yëpp sama papa oyof xam nga yow xam si dara parce que xam ngaa nekk ak moom tuuti. Uh-huh. waaw moom daal mi ngi noonu rek yónnent bi rek la bëgg. Uh-huh. moo tax suma borom rafetal xolam mu bugg ñëpp bëgg njabootam ni mu mel ci man noonu la mel ci jàmbur yi uh-huh. sama xarit yéeg sama manager sama frère yi ko boo leen fekkee si kër gi da nga naan ñii ñëpp mooy seen papa moom moo leen jur moom moom dafa baax macha allah. Euh, est-ce que mën nañ xam combien de temps yow nga jël sa yoonu bopp carrément nekk ci musique bi def euh, carrière solo. un an demi ah. un an demi. waaw parce que. ngay toj àdduna ni. sama sama premier single Mam Bamba. Mhm. maa ko génnee duma ko fàtte mu euh, le 6 mai. Mhm. 2017 laa ko génne téye leen ko bi ñëw ci 2018 euh, bi passé. téye leen ko téye naa ko ku ci am góor bu baax yow na ko téye. téye koy toppatoo. single yi ba ma koy génnee ba may génnee sama premier single Maam Bamba boobu amaguma woon label mais dama ko génne def vidéo euh, commencé am ay proposition nit ñi commencé ma découvrir am ñoo xamante ni soxla nañ ma pour liggéey ak man mais xam nga du du du du du du tëll rek nit ni mooy loolu xam nga parce que ay xale lañ boobu comprendre guñu woon lu bëri ci milieu bi ñu jël suñu temps rek bañoon a yàkkamti defar beneen single muy téyeloon ko bi avec suñu propre moyen génnee ko buntu yi tamit gën a ubbeeku gars yi tamit di ñu di a teg pressing xam nga ñu xool ba trouver entente ak benn label bu ñu naan doomu Jolof ñu signé ak moom contrat. Euh, bëggoon a xam euh, par exemple euh, single yi bi nga koy def ak sa fond propre. naka la demee woon parce que doo ko doo commencé xamagoo ci torop moyen bi et tout ça naka la demee woon. waaw xam nga euh, ñun moom ay jaam lañ rek amaguñu dara te tamit tollooguñu fenn sunu borom mooy teg si ñun loxo rek ñu ñu bëgg di ñu jàppale ñoo am ay bonne volonté yoo xamante ni dañoo gëm bëgguñu di ñu jàppale euh, suma famille tamit di ma jàppale xam nga lépp lu ma soxla rek ci suma métier ñoom. pare nañ pour defal ma ko ñoom liggéey rek lañ ma sant ak bañ a def lu bon wala ngay dugg ci loo xamante ni ku la ci fekk dina la xeeb mais pour côté boobu moom macha allah am naa ñu bëri ñoo xamante ne mën nañ ma si jàppale quoi. dañoo gis ne Tarba dafa mel ni il est le chouchou de sa famille et tout ça ah te tey ni ma la gisee kafre bi fo bi ku nekk nga tooñ xanaa caat nga. waaw ah, man maay caatu mère bi mais du ma caatu paa bi nag quoi mais mère bi moom sama yaay man maay caatam. <laughs> waaw en fait label bi moom euh, Paris mooy base bi France la nekk mais euh, ñi ko ñi ko moom ñëpp ay sénégalais lañ waaw ma ci nuyu de passage suma frère ñu naan ko Ibou Thiamban xam ni moom mooy producteur bi maa ngi koy bëggee bu baax a baax ñu ngi def liggéey yu am solo ci man di ñaan yàlla rek lépp lu ñu songu rek ak lépp lu ñu sungu yàlla na ko yàlla eggale waaw te muy sunu njiglaay est que yaa ngi gis sa bopp bu baax a baax ci label yi parce que en général euh, label yu bëri dañ lay téye même nga bëgg a def émission wala loo mën ci bëgg def dañ naan la bul génn xaaral lii xaaral lale est-ce que loolu tamit euh, du leen bloqué benn côté bi waa xam nga lépp loo gis rek waxtaan la te ci lépp looy dugg rek da ngeen di waxtaan ci li ci ci li nga bëgg di waxtaan ak ñoom ci li ngay bañ mm. boo leen déggee ci déggoowee ci loolu Euh, rek ngeen signé seen contrat euh, ñoom li ngeen di bëgg ak li ngay ak li ngay bëgg ak li ngay bañ ak ñoom li ñuy bëgg li ngay bañ ñoom xam nañ ko yow xam nga ko moo tax it euh, pour man du loolu noonu du garaaw quoi du métti artiste da ngay am producteur te tamit nga nekk jeune nekk ci label dafa baax parce que tamit ñu bëri lool la ñuy rêvé boo gisee Sénégal bëri na ay jeunes talent yu bëri mën a way am lu nekk seen i dënn ci ay way am talent boo leen dégloo léegi da ngay jooy li nekk ci seen dënn ci ay woy kenn xamul nu ma toll mais amul fu ñu ko pro fu ko mën a produire parce que amuñu amuñu moyen ni pour nga dugg studio def benn single rek xam nga xaalis bu bari la te ku nekk gis nga ni ni ni ni ni showbiz bi demee soirée yi léegi ñiy tëgg bëreetul ah. da ngay obligé di jouer ci ay mariage yeeg di laaxaarti pour mun a am benn benn benn benn somme bi xam nga boo ci buggee boolee tamit di produire sa bopp day metti xam nga kon nga nekk ci label de production boo xamante ne ñoom ñooy yor sa produit am na solo tamit ñu bëri tey ku ko amoon jël mun naa wax ni ku ko amoon jël ñun nag dañuy sant yàlla bu ñu liggéeyee suñu liggéey am ñoo xamante ni convaincre na leen ñoom ñu bëgg a liggéey ak ñun. ñun dañuy tëgg soirée presque chaque chaque semaine euh, ku ñu xam xa da ñuy xam ci live da ñuy xam ci ay soirée macha allah ma dëkk ci benn quartier boo xamante ni mooy sama base nag ñu naan ko Grand Dakar ñaari tali Biscuiterie yi foo xamante ni fii laa juddoo yaroo fi màggee fi ñu mu nekk sama base fépp fu ma wootee am naa fépp ay soppe Sénégal gi yëpp fépp fu ma woote fu nekk la nit ñi di jógee. waaye particulièrement grande Dakar ñaari tali lépp lu ma song ñoom ñoo koy daan maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax. Euh, relation ak euh, artistes est-ce que am nga relation bu cordiale ak artistes yi. waaw man moom artistes yëpp euh, samay am di jàmm lañ du ma sax wax samay xarit lañ parce que xarit dafa nekk loo xamante ni dafa dafa intime. Mm-hmm. Euh, ndax xarit da ngeen di partager di demlante di dëkkalante di partage lu bëri mais am na ñoo xamante ni euh, samay xarit lañ am na ñoo xamante ni même su ma amul ak ñoom affinité tamit euh, du ñuy gisante lu bëri sekk na ak ñoom jàmm fépp fu ma leen dajeek ñoom dañ may bëggee mu bëggee leen xam nga bu ñuy jëlante ay contact di partagante xam nga mais ñëpp daal jàmm laa sekk ak ñoom ak salaam. mais bëggoon naa xam El Hadj complicité bi nekk seen diggante yi ñaar bi ngeen xamante kañ la ci biir musique bi la ci millier bi ngeen xamante wala da ngeen xamante ay années avant parce que daal seen complicité seen complicité yéen ñaar dafa doy waar. <laughs> El Hadj Keita El Hadj El Hadj sama fils <laughs> El dégg nga nee na fiisam nga ah. <laughs> bañal loolu non il faut ma invité ko mu leeral loolu. <laughs> sama fiis la wala fiis. sama fiis la de moom sama xarit la nag. xam nga ba ñuy xamante boobu wayaguma moom wayagul dañoo bokkoon benn koñ. sama koñ maam bi ma doon dem vacance moom tamit fa lu doon ñëw vacance Medina la dëkk mais grande Dakar la doon nekk chaque chaque vacance euh, ñu fay nekk tamit di kafandoo di foowandoo di reewandoo xam nga. nekk ay xale boobu wayagul sax man tamit wayaguma boobu maa ngi jàng boo duggee sunu kër sama kër maam sama famille ñëpp la xam samay frère ñoom ñëpp tamit ñoom ñoo ko xam euh, sunu borom di dogal ñuy dem ba bokk benn métier dara ñaawul tamit lépp rafet ñuy partage ma ak moom loo xamante ni dafa bëri trop trop trop mu nekk sama xarit di sama doomu ndey di sama fiis nag waaw. <laughs> voilà kontaan nañ trop trop trop parce que waxtaan bi tey et puis ambiance bi pas bi fri bi féex bi ah tey dama ñëw mel ni ku nekk sama kër lii moom ah c'est du jamais vu. tournée boobu mën nga ñu cee waxal tuuti kan moo ko organisé ak yàgg ñen ak ñeen yéen a ko bokk. waaw euh, festival benn festival bu ñu naan festival Teranga Sénégal euh, suma label moo ko organisé ñu naan ko Doomu Jolof. mu nekk 32 artistes yoo xamante ni da leen di yóbbu Paris euh, les Dogs de Paris lay amee mu nekk deux jours 48 heures euh, samedi le 20 avril ak dimanche le 21 avril mu nekk 48 euh, heures boo xamante ni culture dina fa feeñ xam nga dajale na artistes yu bëri yoo xamante ni ay sénégalais lañ. waaw ku mel ni Sidi Diop. ku mel ni Pape Diouf Assane Ndiaye. Euh, Viviane Aïda Samb Momo Dieng et d' autres artistes yoo xamante ni euh, mun ma leen lim nii xam nga mu nekk initiative bu rafet nag comme que sumb na ko si jàmm euh, egseegul nag dañuy ñaan yàlla ñu egg ci ci jàmm. Tarba à album bi fan la toll li ñen nit ñëpp di wax album bi fu toll tamit. xam nga xam nga yéen li may wax sama gaay rek yéen yéenay yéenay yéenay yéenay. jaxase xelu artistes yi parce que ku toog ak yéen rek ah album bi album bi album bi album bi da ngeen koy teg pression boo xamante ni mooy loolu parce que album yombul xam nga album yombul. mais Tarba yaa ngi ci label. maa ngi si label te ñu ngi may produire ñu ngi may produire bu baax a baax a baax incha allah sama album moom bu soobee yàlla maa leen ko promettre c'est pour bientôt mais damaa bëgg ñu xam ne album yombul. jeune talent yi damay seetaan koo toogal rek da nga naan waa c'est quand l'album mu ne la ñu ngi ci préparation bi album bi fan yi patati pa mais album du ay caaxaan album dafa metti ay millions la ba pare dafa am day laaj recherche xam nga coono bi ci nekk du loo xamante ne da nga koy waaxu liggéey ko léegi mu naayes léegi wala mu pare léegi il faut nga jël ci sa temps def ci ay recherche xam nga préparer ko pour bés boo ko génnee nit ñi ku ko dégg xam ni lii kat Euh, am na am na qualité. ba Mbaye am na jabar. non aw ma am na ku fi ne. pur. ah dara fay loolu. <laughs> voilà Tarba dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ak téléspectateurs yi. dama naan ba solee sa dàllu bàyyi mu jot la nga war a góorgóorloo jéem a téeral yaay ak bàyyi muy waareefu doom ci duniyaa ndax nit ku nekk war ngaa jomb dundi ñakku jàmbur sa giiru dund li la ci muccal mooy nga naw liggéey man bëgg naa kuy liggéey te am jom ci boppam ndax ëllëg si biir say noon dun la reetaan liggéey war na góor te war na képp kuy jigéen fa fànn wal liggéey ngir mu jariñ la inchaallah <laughs> luy naaw a neex a sànni ñu àndoon ceeg ki nga xamante ni rek mooy Tarba Mbaye macha allah di doom ci Moustapha Mbaye donc c'était tout pour aujourd'hui amis fidèles téléspectateurs on vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de Vox Art d'ici là portez-vous merveilleusement bien gardez la souris et la pêche et restez scotchés sur Equivox TV votre télé à portée de main bye bye